Euh, lan moo waral tey seen ndaje bi. waaw alhamdulilah ni ko gisee ndaje bi tey dañoo ñëw euh, ce matin à 9h xëy si comme d'habitude donc grande surprise le secrétaire municipal convoqué ñu benn par benn dañu wax ni euh, licencié nañ leen quoi. licencié bi ñu laaj ko les raisons de ces licenciements mu ne moom parce que le maire da ko jox liste bi rek ne ko nañ licencié booy yëpp. d'accord noonu lañ demee. Euh, léegi yéen nag nan ngeen jot moo nekk ci ginnaaw licenciement bi. bon li ñu jot nag mooy euh, ndax commencé woon nañu menacé depuis depuis référendum bi ndax référendum bi da cee bokk ndax référendum bi booy yi nekk fii yëpp dañoo àndoon ku ñuy tuddee Juliette Zenga nga xam ne moo nekkoon directrice du cabinet kooku camp wii la nekkoon moom Barthélémy nekk camp du non léegi ba yàlla defee waa wii gagné gagné ko fii si mairie bi à Plate Couture si commune bi yëpp même bureau bi ñu voté loolu mënu mun na mun na xari ko trop de ce fait depuis lors

ñu ne suñu première activité bi ñu def ci weeru koor dañuy def ay ndogu may ko jaam yàlla gars yi ñaanal ñu ko bu association mën a jëm kanam ba ñuy organiser ndogu bi ñu def dans les règles de l'art dans de l'art mooy def nañ demande jox ko adressé ko à monsieur le maire euh, la ko à monsieur le maire jàllale ko si suñu bonne répondre moom répondre ñu dem solliciter ko ndax ñun on travaille avec yoo xam nañ donc am nañ accès si ñu dem solliciter ko ne ko monsieur le ne man bu ngeen ma xam ngeen fi ngeen jaar dem nañ ci conseil euh, président commission jeunesse bi géré ñu jaar ci président commission jeunesse président commission jeunesse bi ak ñu ànd ni ñoom duñu recevoir bañ nañu ñu jàpp ne seen xel foofu la toll ndax ñun dañuy def te yàlla tax kon seen xel fa la toll ñun ñu dem di jël suñuy moyen ak suñu xam-xam ak ñi xam ci dëkk bi ñu dimbali ñu ñu suñu ndogu réussir ko yàlla def sax mais ndogu na lay nekkee politique soxna si ndax ndogu boo xam ne ndogu boo xam ne euh, dangay nga yeewu ku nekk APR jox nga ko euh, jox nga ko demande ki nekk parti socialiste jox nga ko demande moom ay xaritam jox nañ leen demande ñiy liggéey ci mairie jox nañ leen demande moom lan la mën a nekk politique ndax parti bu nekk jox nañ ku ci di wàll bu ñu xamoon fi nga dëkk da nga nekk autorité ci commune bi jox nañ ngeen ñu nekk treize personnes. treize agents euh, léegi su fekkee su fekkee war na est-ce que di mu woo day am condition ñun li ñuy bañ mooy ni ñu ni ñu bëgg def ndax sànq ba ba problème bi commencé dafa am cinq suñu cinq mu ne léegi dàq ma ñëpp cinq laa dàq te li tax mu wax loolu mooy dafa am lenn lu am instant bi muy patente te patente yi dañ ko mën macha allah léegi nag da di soxla trop trop trop léegi moo tax mu ne cinq laa ñeneen léegi ñun ñun ñun ñu xam fa mu jëm ndax ñu ak waa ji yàgg nañ waa bu daan wax dara balaa moo terminé phrase ñun xam nañ fañ koy fekk ndax yàgg nañoo moom léegi nag de ce fait ñu ne kenn bu dem boo yëpp def collectif comme ni ñu defee ci association

te mënoon nañoo fay mu àgg feneen te loolu lañ doon bañ loolu nag dañuy sonné l'alerte pour benn yoon bi te xam ne yeneen yi nag am na yeneen zone yu ñu teg ñu moom xamante